العلام وأبى سواك الحق من ذي حقهم وأبت أيد ملكك الأيام أنت رب واحد بصفاته وفعاله بشهادة تعتام ولأنت خير مكون ومقدر ومهيمن تجي له الأحكام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 ku sa yaakaar tas sa fit dëgër ndax ki ngay ray defe dina la jox la waye su deme bani la lank na tay ba sam bej may tag daf lay bet moo tax yaakaar tax nit di ragal bes bu ta tasee nit ñeme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 tax ragalatuñu dara ñoog yàlla bokk service léegi iblis itam ragalatul yàlla parce que la mu yaakaaroon ci moom yàlla xañ na ko lékkay lu ko neex def moo tax kur kenn la jaamu du dem bu sokkoon yal na yàlla yokk leeram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 seen yar àgg na ci dootuñu waxante lam làmmiñ bët lañuy waxante te xaw ma loolu na mu man deme ndax mu ni boo baree gëstu dinga foog ni daal nit ci kaw suuf si rekk la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 rekk waaye waruñoo sàkk nag fu muy ne maanaam nit yaram war na man dem ak moom ba ku waxul ak moom it bu la xoolee xam lu nekk ci yow loolu lu am solo la waaw lu ama am solo la te kooku ci wàllu psychologie la ndax li Cheikh El Hadj Malick wax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 mu ne ah kon nag ñoom sonn nañu nañ nañu daw noppalu ji waaw mu ne ak ah, kan mu ni Baye Fall yi waaw nee na Baye yi ñoom dañu jóg rek ni seen sëriñ lañu xam tëgg tabale ne malaaka yi fax ni waaye lii lan ñu ni mooy tabale rek ne ñëpp pàkkar bi <laughs>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 nee na yàlla dégg coow li nag daal di sëpp ci balcon bi <laughs> waaw ne daal di ni malaaka bi loolu lan la waay nee na waay ji daal di ci suufu balcon bi ni ko suñu borom nun la waa ndax loolu daal kenn nu ko dégg rek nee ka waay waay waay waa Ndar yéen itam ngeen nekkoon ba na gën mu ko waaye duñ doon sanguwaay waaw ah ko fii nag dafa am lu fi xew lu kam mu ne ko dañuy seet nit ñi ah ñi ci jaar ci lu baax ñu bu leen àjjana ñi ci jaar ca safaan ba ñu bu leen safara looloo fi xew kon nag xaaral moo wokki ku méngo mu ni ko sunu borom xamal ni yow sonn nga fi mu ne te ñun itam dañoo gudde ah bàyyi ñu rek ñu dem benn yoon xamuloon yow ku baax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 su demee ba xalaat génn ca musiba dugg amul werante su demee ba xalaat génn ca musiba dugg ndax Serigne Aline Gueye nee na seen maam daan na wax ne aljamaatu sumun qaatil la waaw ah, mu dëppoog la Karl wax donte nee ñu Karl Marx gëmul diine nee na ad diinu huwa mu shaab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 nak nag tabarkalla legi wuy wuy ji sa borom nga jël ci kilo debbu ko ba mu mokk tabarkalla nga jël ko waaw wa daal jamaatu sumun qatil wa maanaa mbolo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 ثم صرت من بعد عمر امير المؤمنين كنك فاتق الله يا ابن الخطاب وانظر في امور الناس قبل ان تبحث ndaw si def ko عمر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 ñu bokk na ci li leen jaaxaloon ci Cheikh El Hadj na mu daan bëgge ndax bëggu xale bu ndaw la daan bëgg te xamuñu nag lañ koy tudde xale bu ndaw jikkoom àggagul ci bëgg moo tax bu bëggee rek nga xam ne xale la waaw Maodo jikkoom dafa ëpp bëgg moo tax bu bëggee rek mu dellu ci xale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 waaw moom mi ci fit wu rëy wi nee na kudul yàlla di nga yaxantu ci diine ñu ni ko yonent yi nag mu ni kudul yàlla laa wax kon nag yonent yi dugg nañ ñoom sax daañu tricher parce que nit lañu moo tax moo tax am kilifa xam ko lu baax xam ne si kilifa xam looy jàpp ca moom looy jëriñoo ca moom moo ëpp njëriñ waaw moo ëpp njëriñ ndax bas naa dégg ci làmmiñu président Lamine Gueye yal na yàlla seral yaxam نسألك يا من هو الله الذي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

loolu nak di téere bii di karafil mu ngi ko ñëw wecceekoo ci géejawaay ca lycée limaamu laay foofu ki fa nekk di ngeen jokkook moom si 77 617 70 44 77 617 70 44 karafil téere baa ngi chance baa ngi nii xéwal baa la nii doxee ci dara jaam la nu sàkkee kooka mooy muhammadu rasul yaa lil gën sayduna muhammad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 سرات لسين أن حمد عليهم خير المحدوب عليهم ولا دالين آمين بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم بسم الله بسم الله السافي بسم الله كافي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 ndax sunu bopp la koy jaal di koy jaal umma islam bi yëpp fa la si xalifa Cheikh Ahmed Tidiane si Al di koy jaal njabootu Seydi Al malik si nga xam ne yàlla si ndogalam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 Serigne Moustapha Sy responsable moral ak magam fa tabarakallah Serigne Mansour Sy di jall julit senegal yep na fa tabarakallah eh, al maktoum julit ñepp ko soppan fa tabarakallah eh, nan koy wax rek nuy ñaan yalla cat ban koy jitu si bamelam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 cheikh ahmed tidiane si al maktoum bu neex yalla sunu demee ba 23 heures da ngeen mën a konté ñun si yoon bi ngeen doon jaar si 33 821 1485. fa tabarakallah nan daan tambalé rek nuy ñaan fep fo xamné kaddu ag na fa nu jang fatiha ak la jàppandi si xul wallahu ahad gannaaw banu ko hadiyalé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 si barkelu si kaddu gog nga xamne bi mom lañ leen dektel si début bi bu nu si barkeeloo na si ba dem ba des ay minute fu tabarakalaa nu du ñak yenn kayfiyat yo xamne dinañ ko mëna wétali konté konte ak yeen kon sëñ Souleymane bu fekke am ku yeglu si yoon bobu rek nga jël ko si 33 821 14 85 sunu mbokk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 waxtaan wi neen leen dek mu nu man see jànge lu bëree bëri bëri fi tabaarakallaa muy waxtaan bu ama am solo dégg nga ko si kaf ga ak si fasaax nga xam ne macha allah loo ñàkk-ñàkk dégg soo ko dégloo rek dan nga mën a am noo niveau boo mën a àgg loolu may la fi tabaarakallaa nu ngi ñaan yàlla fayal nu sunu kilifa googu di Seex Ahmed Tidiane Sy Maktoum ki si yoon bi wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا سي جاج مختار Wakam. ah Serigne Diagne maa ngi lay bu baax. maa ah, bu baax Mara. jërëjëf yal na yàlla nangu tabarkeel Diagne. amiin amiin amiin di la ñaanal rek. jërëjëf Diagne Diagne. Ah, Diagne yàlla yàgg suñu kanam di ñu. amiin ëlbati di ñu teg si yoonu. amiin xam moom la suñu borom gërëm. amiin amiin Diagne amiin amiin. Ah, maa ngi woote mais dama oote muy mais baax na dinaa dem point après incha baax na incha allah baax na. nañ si dégg après am rek dinañ déggoo mën a. baax na baax na. baax na Diagne yal na yàlla barkeel la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 kontaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf Seck émission yi moom benn jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf wallaay rafet na rafet na rafet na rafet na sëñ Omar Seck fa tabarakallah bismillah ki si yoon bi salaamaaleykum وعليكم السلام ورحمة الله سنت بيم جيدة طالب محمد نعم. آه طالب محمد ما شاء الله جري جف ما عندهم جوكو سرين لق آه، والله والله جري جف جري جف والله والله والله والله طالب محمد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 jërëjëf barakallah Talib Mohamed amin amin jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf barakallah yal yalla, yàlla 33 821 14 85 su ko ku nekk si yoon bi bismillah <laughs> seen émission rajo municipal de Dakar 95 point 5 bismillah bismillah allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Cissé eh, sant bi Adja. Ndiaye man la Adja Seydou. ah Ndiaye soxna Seynabou nu ngi lay siyaara Ndiaye. maa ngi delloo siyaar bu wér. Ndiaye jërëjëf Ndiaye Ndiaye. jërëjëf. Ndiaye. di dama ne woon naa dugg rek ziar. wallaay rafet na rafet na Ndiaye. waaw ngi nuyu nag. jërëjëf jërëjëf Ndiaye ak Aram. wallaay sanu. Mm-hmm. ñoom Penda. moom mm-hmm. Diarra. Mm-hmm. sëñ Modou ñoom jërëjëf jërëjëf Ndiaye Ndiaye. barkel la soxna Seynabou Ndiaye. alhamdulilah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 man la gudd fan ak wér. amiin amiin amiin njaboot gi. amiin alhamdulilah na ngi sant bu baax kay. ñu ngi sant bu baax Seye amin amin Seye. ñu ngi koy jaalante rek suñu sëriñ bu wallaay na yàlla yokk leer gi fi taas rafet na rafet na yaay Wadduha jërëjëf jërëjëf. na yàlla yàggal taxawaay. amin amin amin amin. nee yow Mara moom kañ ko daloo woo mu boobu amagul at ci ci ci lu wér a nga wallaay. <laughs>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 ak sama rakk yi ca wakaam nag te ñu àndoon ñëw fa. wallaay wallaay dëgg la mu mën a maa ngi nuyu dama dul mën a dugg léegi. lu bëri. <laughs> jërëjëf jërëjëf jërëjëf baax na incha allah baax na. Ah, dinañ la siyaare si léegi yaay Wadduha <laughs> jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf barakallah soxna Sey barakallah yal na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 man leen maa fa nekkal Serigne Mara Cissé en direct fële ca Tiwaawan. wallaay macha allah ndeysaan. sant bu mhm. baax. wallaay wallaay jërëjëf Serigne Mara lay ñaanal. jërëjëf ñu ngi lay ñaanal ñun tamit Mouhamadou Lamine. wallaay Cissé wallaay. yàlla yokk la bu baax macha allah. amiin Cissé amiin Cissé. ne ko yëg nañ macha allah yëg nañ fidélité jàpp geeg yéene bi lépp yëg nañ ko macha allah. wallahi mm-hmm. si eh, eh, ñoom eh, ndax ni ma ko waxee artan yi ñoo la ñoo la ñoo ñoo ñoo lay ñaanal yàlla nga yàgg wallahi wallahi jërëjëf jërëjëf ndax itam fi nga yoon wi nga nekk itam di taxawu askan wi mm-hmm. askan wi yëpp yëg nañ ko jërëjëf jërëjëf yàlla suñu borom guddal sa fan amin amin amin laa doole defal tawfiq amin defal la naja amin amin amin defal la saxadaari ci barke yi nga yàgg fi lool mboolem bi nga xam mooy mboolem njabootu Wadduha gi yëpp maa wallahi jërëjëf jërëjëf jërëjëf alhamdulilah boutique yëpp tamit ñu ngi leen nuyu di leen ziar ñoom it seen liggéey gu am solo. wallaay wallaay nu ngi lay fay bu baax si sama kàddu taxawaay gis nañu tamit pharmacie bi ni ñuy liggéey. wallaay wallaay ndeysaan askan tamit di ko rafetlu bu baax a baax. wallaay wallaay wallaay wallaay ñoom lay di yeggaale ñëpp ne yàlla baaxe na nuy léegi saabu alhamdulilah saabu bi. boo xam ne ah. yokk na si macha allah. muy saabu ouverture bi. Ah, ah, ak eh, ak saabu bi faxas cat. bi faxas cat ñoo koy eh. bàyyi xel. Mhm, ni ñaanin eh. yàlla def si barke xaa comme yeneen yi rek. ah déet moom li ci tàkkantal rek moom dafay daal di. wallaay wallaay wallaay mu mel ni tamit produit yi ci pharmacie ñoo ngi koy wax tamit naan ñu lumu lumu bi ni muy doxee tabarkal askan bi di si gis seen bopp. wallaay wallaay wallaay. lumu lumu Muxtaar ñoom ñëpp ñoo ngi koy bàyyi. wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi alhamdulilah daal yaakaar naa boutique bi daal dañuy gën a ñaan yokk ndax amiin amiin amiin bi sunu xel na baax xam nañ ko bu baax sant nekkoon nu la fi toogal tamit alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf yal na yàlla yokk la barkeel amiin siise amiin jërëjëf jërëjëf Mouhamadou Lamine jërëjëf jërëjëf barakallah Mouhamadou Lamine Mountakha Ba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 wallaahi wallaahi. lépp di ay njëriñ. wallaahi waxtaan yi day yàgg gudd waaye lépp njëriñ la. wallaahi ndeysaan wallaahi wallaahi Alla mu ngi lay nuyu. <laughs> maa ngi koy ziar maa ngi koy ziar lu bëree bëri sama doom jooju. Gajaga wallaahi ndeysaan. maa ngi lay ziar te lay ñaanal. gudd fan gu ànd ak wér. amiin amiin amiin Seydina Muhammad amiin amiin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 33 821 14 85 yoon boobu ngeen di jaar pour nu wettali contact ak tey ni ma ko waxee woon rek nu doon barkeelu si sang boobu fi bàyyi ko. bisimilah ki si salaam wa rahmatullah wa eh, bi Sall. <laughs> waaw war na nga def ma sha Allah ubbi bi rafet na alhamdulilah sell sell jërëjëf ñu ngi ñu ngi siyaar bu baax waaye sëñ bi jërëjëf jërëjëf sëñ sell ñu cofee ci yow jërëjëf yal na yàlla nangul nu ko amin barkel ko te yàlla barkel ko it mi ngi am mbégte lool si liggéey liggéey bi ngay def si whatsapp bi macha allah waaw macha allah na yàlla barkel waaw alhamdulilah barak la sëñ Mor waaw kañ dañ waxoon rek ñu dugg rek daal di na rafet na rafet na Adja Aram sa ngi lay fay sama kaddu. yàlla yàlla defal jàmm ci barke alquran. amiin amiin amiin sall. yàlla ubbi xéwal yi. amiin amiin. ñu yëkkati ñu yëkkati ci yu kawe ci barke Sina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf sall. Sina Cheikh. doon ko fidélité si Wadduha di def liggéey bu am solo te rafet si whatsapp bu Wadduha solidarité. asalaamaaleykum salaam wa rahmatullah wa barakatuhu. nu ngi la koy delloo bu baax a baax a baax Kouta. di lay ñaanal. wallaahi wallaahi. moo doon jaar ma yeewu yëgal ñëpp na sama yéene moo nekkoon toggandoo yow tey fii. incha allah ndax si at boobu macha allah si at boobu nga nekkoon macha allah. maa ngi nii bisimilah bisimilah. ñu ngi leen di ziar bu baax. wallaahi oh, ah, yaa ngi si rajo municipal de Dakar. ah kooku mu Cheikh Tidiane.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 sigi leen ko ndigaare. wallaay ni mu la koy jàllee Cissé wallaay ñëpp ko bokk kay. wallaay ndeysaan ñëpp ko bokk wallaay Cissé. moom pour pour insaan yi la woon. wallaay wallaay wallaay wallaay. wallaay wallaay. yal na la yàlla fay Cissé. amiin amiin amiin Cissé.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 wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk def nga ci sa kéem kattan. wallaay wallaay dëgg la nga la baax si dinaa baax na allah baax na baax na. man Mansour Niang sax. dëgg la dëgg la. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Mara. waa sëriñ bi Kouta. waaw wax rek tabarakallah te di ko gàttal. Mhm. di xam ne ki nga xamee ne mooy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ci Al mhm. yàlla dogal ñu ñàkk ko Sénégal gépp ñàkk ko. Mhm. umma islamique yëpp ñàkk ko. Mhm. dama gis sax ci internet bi sax day. ku dem lii nga def nii. ñu tuddee dañ ko tuddee rendre hommage. ministère des affaires étrangères de France. Mm-hmm. yabal ministre euh, euh, euh, ambassadeur bi nekk ko toogal fii ñu mm-hmm. ko hommage tabarakallahu. macha allah. bu mm-hmm. fekkee ci mi yow nga doon jàngalekat ci borom xam-xam. ko tubaab ba nga xam ne jóge ci bitti di def lu mel noonu. yow boo deful loolu xawma kan. wallaay wallaay dëgg la wallaay. waaye daal dinaa la xamal ne intellectuel dem. wallaahi wallaahi dinaa la xamal. nga xamee ne.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 def ko ci waa kër Cheikh Ibrahima Niass. wallaahi wallaahi fekkoon koog waa kër maam Khalifa Niass. wallaahi wallaahi fekkoon koog waa kër Sëñ Abbas Sall. Mhm, mhm. rahmatullahi alayhi. Mhm. kooku ku yaatalul mënoo def. wallaahi wallaahi dëgg la dëgg la fekkoon koog Ibrahima Diop grand sëriñ de Dakar. ak ñi nga xamee ne ñu fii ci fii ci Sénégal. di jëflanteeg chrétiens yi mm-hmm. muy abbe abbe abbe yi nga xamee ne yàlla dog na moo tawi sa euh, nu mu tëti euh, cardinal Yacine Kandou ñoom mm-hmm. mm-hmm. tabarakallahu ci wàllu dëkkandoo ak pas-pas sëriñ bi ci wàllu politique lu ne def na wallaahi wallaahi wallaahi dem na ba nekk nit xam ne nitu daara la mm-hmm. bu njëkk a ubbi parti politique macha allah pour mm-hmm. wane ne rek citoyen la yam mm-hmm. ki der rek wóorul wallaahi wallaahi ndax boo nekkee ci réew moo xamee ne <laughs> ñëpp dañ fi nekk tey li ñuy tudd ci wàllu politique la leen di joxe cër. Mm-hmm. boo ci wanewul sa bopp ñu xeeb la. wala wallaahi wallaahi daanaka koy wax sëriñ kese kese. ak sëriñ akut lëf. <laughs> Eh, wallaahi <laughs> eh, eh, wàllu xam mm-hmm, mm-hmm. jëfandikoo te wattu ba. wallaahi wallaahi wallaahi. sëriñ xam-xam bi la gën a fisal. ci bàttin ba. macha allah waaye bàttin ba gën a rëy. ci xam-xam ba. waaye fii ci àdduna. jëfandikoo ci bàttin.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 yëkkatil ko fa. Mhm. kenn du na lu tax mu def. wallaahi wallaahi waaye nag moom daf ñu mus a jàngal ni mhm. ana ñu sant ba ko si Abdou Diouf falee. Mhm. di ko takkal médaille. daf ne ko. boo ma ko takkalee ñi sant Mbàkke ak ñi sant si fii. ak ñi sant Ñas. Mm-hmm. ay noon ngay ëppale waaye doo ami soppe ndeysaan mm-hmm. kon nag médaille bi yéene nga ma ko mm-hmm. te yàlla yéene rek la wallahi wallahi wallahi ñëlbëti ko ne ko kaay mayal ma sama doom ci pale bi mu ne ko ñi may mayeloo seen doom di soppe sëñ Babacar ma leen di booleeg ilimaan jënu dëkkal bu yàlla dogalee ñu dégg ne maa nga ca pale ba di maye doomi Abdou Diouf dañuy génn ci man àdduna ak àllaaxira kon naa lañ bàyyi rek ngeen organiser ko doxale ko na ngeen ko war a doxalee tabarakallahu yàlla yéen lay fay wallahi wallahi bi mu xamee ne fu mu faj soxlay gor yépp dafa tànn làqu masha allah wallahi tànn làqu wallahi wallahi parce que ku mun ta faj soxlay gor yépp daan na làqu daana wax ci wàllu xam-xamam nee na wala fay wax ku dee weeru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 di naan sa ataaya du yëg xew. Mhm. man daal foofu lay tiitee. waaye nag yaakaar naa ne. Mhm. moom avant muy dem bàyyi na fi lu mu. wallaahi ndax ñun fi bàyyi. Mhm. mate nañ ko fëkk. wallaahi wallaahi ku toll ni Serigne Abdoul Aziz. al Amin. bi mu ko ñàkkee kooku kenn xamul loolu lan la.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 bu ma mhm. amaatoon keneen jox la ko. Mhm. te yeneen bi alxuraan daf la rus buy wàcc sax danaan Ousmane gi fi. Mhm. malaaka yi rus la sunu borom rus la looloo waral ma ne kun ku boo fàttu na la yóbbu bàq ya. diggante bàq ya ak Madina ku jaar ci diggante bi sooy. macha allah. nga xam ne xam nañ secret bi nag. Mm-hmm. nee nañ diggante bi ñu rob bu bàq ya ci Ousmane te miir ba mm-hmm. boo ko calculer ba nu ngay tegee sa tànk ci buntu bàq ya mm-hmm. daf lay jox presque un kilomètre yu teg wala tuuti lay manqué macha allah ñi nga xam ne dañuy calculer ci wàllu kii boo xoolee ci almeeru bàq ya ba ci Madina dan lay wax ne la un kilomètre wala lu teg tuuti lay doon boo ko calculer da lay jox ay deux kilomètres eh, eh, eh, barkala Cheikh Kouta macha allah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 waaw yàlla dañoo boole allah ndeysaan. ah wallaay wallaay yow waroon nañoo xamee kat macha allah. sëñ ah, Omar ah waroon nga ak kër ga nu gisee nag mu ne ko waru doon taalibe sëñ Omar te xamante woon. <laughs> ah ay waay ay waay sëñ àll.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 Eh, eh, eh. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Ndiaye. jërëjëf barakala sëñ àll. jërëjëf yan yàlla barkeel ko di gërëmaat bu baax seex ku tëf tabarakala di koy mosawit di koy ñaanal yàlla yokk ko wér tabarakala 33 821 14 85 xam na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

mbokk yi wa wadduha njëriñam ëpp na njëgam juróomi junni ngir faj sa mbir wa duha yàlla moo ci giñ yor yor la léppay leer alaaji mamadou si se mara waa góor allahumma salli afdal salatin ala اسعد مخلوقاتك سيدنا يا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 حتى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين fatabarak la moo tax ku ko am boo ko segg xente ba pare rek na nga jël sunguf bu sunguf bul ko sànni foo xam ne am na sobe ndax dana ko liggéeyaale ak alxuraan dañuy barkeelu rek si saar boo xam ne sunu maam Cheikh Ahmed Tidiane si almaktum daana koy tudd lu bare bari te mooy li ilaa fi xuraysin barkeelu si tuuti rek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 danga fekk tamit si lii ilaa fi xuraysin wa amanahum min xawfin wa amanahum min xaw ak bëri mboot fa tabaarakala surtout ki nga xam ne def si ut kiir laay te mooy protection asmaulaayil xusna yi nga xam ne juróom-ñeent fukk la ak juróom-ñeent soo demee si kitaabu duha da nga ko fa fekk wa amanohum min xawfin yaa allah ngay def wa amanohum min xawfi yaa rahman ba si wa amanohum min xawfi yaa sabuur kiir lay du koy gën a rey ndax juróom-ñeent fukki tur yàgg naay wax ne lépp lu xam ne bii nit sàkku na ko fa te amu ko mënu koy am feneen ndax jëlee neen si xadis wax nu ne borom bi am na juróom-ñeent fukki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 yalla dana koy yombalal toujours lu mi sakami ba xif ba du massa xif li la don wax leg nak ne turu yalla yu mag yoyu lepp lu sinit ur rek dana ko dana ko am su ndabam sete, ndab bu set nak dina di wax toujours ne lenji tu si yene ñepp jàmm and ak xol bu set wetch tamit وآمنهم من خوف نينا بندلي إلى في قريس بس وآمنهم من خوف تامين غبام كسلي موتور دوتو راجل درف تبارك الله يولاني راجل واي لن دوتو لا دوتو راجل درف تبارك الله يولاني راجل واي يو دوتو دوتو راجل درف تبارك الله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 dem bag si sumun bokku mon mun xam na si yalla mussel mussel si ñepp fa tabarakalaa ni ko ben borom xam-xam waxe rek ne xol man nan ko misal ne perkal bu wex tar sa yu ñaawteef amé nak mu ngi melni jël nga ben marqueur nga bind si nga rëdd fa wala nga def fa nox tomb fa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 wala lu diine di gërëm la day jafe mooy tax fa tabaraka laa day baax lool ngir ki nga xam ne tuut tànk la nga koy préparé macha allah di koy fóotal xolam muy màgg si leer boo juddoo si leer màgg si leer fa tabaraka laa su yàlla defee mu nekk mu kalaf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 suko binde bese ba si raxilatu wala saif na yaatal saat boobu boo demee si xul wallaahu ahad allahu samad dang fek sa tamen mu yaatal saat boobu la ñuy wax weccoo xol la des si sóoratu ixlaas ba mom lay jël mottali ko si lila fi quraysin bi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 kon fa tabarakallah lu néew la won lu nu doon barkelu si lu ila fi xurey sin baatu xurey si rek boko sete day pc 1310 trois cent dix fa tabarakallah di koy jàngal lim bobu danan di wax ne dina yombal wërsëg dina yombal xéwal lii la fi xurey sin baat bu si nekk rek macha allah mën nan see def émission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 ci ndax rajo yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi si kaw sëñ Kouta yaa ngi direkt ñëpp ngi lay déglu. waaw am mbégte lool macha allah si li fi jot na jaar. di sant bu baax rek. jërëjëf Kouta. ndax euh, euh, Ousmane Ibn Affan. Mm-hmm. yeneen ci bi ko Ousmane ñi ma gën sopp laa la jox. Mm-hmm. dama la jox roqeetu. Mm-hmm. مفاتو ما دخلو أم كلثوم ما شاء الله مفاتو تبا من كنن دولي لا والله والله يلا دف نروس ملاكي دف نروس ما تخ مساك يوم بلا بقية بجنت بقية أك مدينة كن في سرق سويو ما شاء الله ما شاء الله فرين شيخ أحمد التجاني سي مروس بابا كفي روسي دير مالي ndax rus na nga sukk ci kanam sëñ Babacar Si gestu yem ci sëriñ Seex sukkaat ci kanam di ziar mm-hmm. mu ne nan ma yóbbu ci sama tool ba ca njàndaxu est-ce que macha allah mm-hmm. nga xam ne différence ak ko jàkka danu mm-hmm. denc fii di Haaj Malick denc fa sëñ Babacar Si denc fa bàyyam Abdul Aziz denc fa ma bàyyam Seex Mouhamed Lil Mansour Si Mansour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 wallaahi wallaahi. bu ko neexoon ñu tabaxal ko ay sato denc ko ci. Mhm, mhm. bu bu xarlu woon jumaa ji ñu xar ko denc ko ci. wallaahi wallaahi wallaahi waaye nag. ku mhm. tudd sunna la. yéreem ba gën a seer jàllaaba la. est-ce que wallaahi wallaahi. te ku sol ku solul fii. waloru six cent mille la solo dara. est-ce que wallaahi wallaahi wallaahi. ay may ay million. ku mu may njëkk wallaahi wallaahi. ku mu mhm, jox mhm. nga tiit. loolu kenn ko gis. wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi. Sëriñ Seex képp koo xamee ne nee na la njabootam la. Mhm. boo ko gisee muy taxawaalu rek des na loolu kon moo ko waxal boppam waaye sëriñ bi nangulu ko ko. fil maxal sëriñ Seex sax du taxawaalu. macha allah sax du taxawaalu. képp wundu sëriñ Seex sax ko gis ci mbedd muy déranger. ñi mm-hmm, mm-hmm. ngi ci seen tarbiya ñi ngi ci seen pas-pas ñi ngi ci seen liggéey ñi ngi ci seen jaamu yàlla mm-hmm, ah di ko jaale nag cheikh sëriñ abdul aziz si al amin wallahi wallahi wallahi yarakam ju baax ajjuma bi ñu koy jaale si ñoom ñu sant si ñëpp fekke ko wallahi wallahi wallahi lenn man ta sant kuta maa leen rax masha allah kenn raxu leen ku dul man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 wallaahi wallaahi di ko jaale alaaji Malick mhm, ndeysaan di ko jaale Cheikh Ahmed Tidiane ñang wallaahi ndeysaan wallaahi oustaz di ko jaale oustaz Mor Thiam wallaahi wallaahi di ko jaale képp ko xam ne ni ci umma islamique ci ngay mhm, mhm, ko mhm. jaale sax doomu aadama yi fekk wallahi wallahi di ko jaale sax affaire yi wallahi wallahi wallahi kuta di ko jaale président Macky Sall wallahi wallahi dëgg la ah réew daal ñàkk nañ ku rëy ñàkk nañ ku rëy ñàkk nañ ku rëy sëriñ Cheikh daal jàngal nañu yar jàngal nañu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 di ko sëñ Abdou ne ko li ngay joxe bari na mu ne ko Abdoul Aziz. Mm-hmm. mës ngaa di joxe lu mu amul. ndeysaan wallaahi wallaahi. ko déedéet mu ne ko Abdoul Aziz. Mm-hmm. tolloon na ñuy tànde jamono waroon di dimbale sëriñ mm-hmm. waaye tariixa beet ak sama turandoo ak yeneen bi nangu na sëriñ tane taalibeem dimbale ko. wallaahi wallaahi wallaahi. mu ne ko sëriñ Abdou <laughs> ne indi wu fi woon xaalis indiwaale ko.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 waaw bisimilah Kouta nu ngi lay dégg bu baax nu ngi lay dégg bu baax. ngor yëpp kontaan nañu. jullit yëpp bëgg nañu. wallaahi wallaahi wallaahi. Maodo si loolu la wax léegi te léegi la ñu tàqali ko ndax dafa ñëwoon di jaale. wallaahi ndeysaan wallaahi. ñun daal ñun daal ñun daal xam naa ne daal. ñàkk nañu. wallaahi wallaahi wallaahi. waaye ñàkkunu nag ndax wax na ba fi. jëf na ba. wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi. bind na ba fi. wallaahi wallaahi Kouta. kon nag Serigne Cheikh yal na yàlla tax ñu ci barkeem. amiin amiin amiin. amiin ñu leeram. amiin amiin amiin. yal na yàlla guddal seen fan. amiin amiin ku yéen waa Wadduha yal na yàlla fat. amiin amiin lépp loo xamee ni yiw la yal na ko yàlla sëmbaxtal. amiin amiin jotaay boobu. amiin amiin amiin. xol bu sedd daal doy na ñaan. wallaay ndeysaan wallaay dëgg la xol bu sedd yëpp doy na ñaan. jërëjëf wallaay ku tey ku tey xolu njaboot yëpp. kontaan na leen. jërëjëf ku tey ku tey. yal na yàlla fayal na Serigne eh, yal na yàlla fayal na Serigne Cheikh. amiin sëñ Cheikh. yal na yàlla fay leen yéen itam. amiin naka ñu leen mu leen mu leen eh, téye kanam bi. Mm-hmm. kontaan nañu bu baax a baax. wallaay lépp rafet na laaj bu fekkee amoo looy laaj. daal wallaahi ah, matal nga matal na matal na sëñ Cheikh ku tey <laughs> barakallah. Begnan lool begnan lool macha allah. begnan lool ku tey begnan lool. xam nga lu ma waxoon ci wàllu ci rajo. nee na journaliste bu toog. gën a def jëfandikoo li ñu tuddee éthique. ak déontologie. représentant yeneen la ci kaw suuf. macha allah wallahi wallahi. xam nga fu mu ko teg. nee na bu njëkkoon yeneen rek a mënoon a wax. adduna bi yëpp dégg leen. wallahi wallahi. léegi yow nit mooy toog ci mbokk. Mhm. informé ay millions nit déglu ko. Mhm, mhm. kon bu ko tegee ci dëgg di ko teg ci xaqiqa. moo wóotu sunu borom yeneen ci kaw suuf. wallaahi wallaahi wallaahi. kon xam ne mooy ñeenti mètre carré. ci ay junni nit di la xamal ne am nga lu la yàlla may. wallaahi ku tey kon am nga ko yaa wuutoo gun yàlla foofu ci jaamam.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 sëñ Souleymane teel nu liñ bi bu ko defee nu yëkkati jotaay bi beneen mercredi di ñaan ngeen nuy ñaanal rek comme mercredi bu nekk rek nuy man di wettali contact yéen si seen émission Wadduha fàttaliwaat ñëpp wadduha point org ñi nga xam ne bii.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 Eh, sëñ Souleymane la. waaw Souleymane la waaw. Ndóor yal na yàlla nangu tabarkel Ndóor. wallaay wallaay Ndóor Ndóor. di la jaare nekk dëgg la Ndóor Ndóor. macha allah suñu cheikh moom. Mhm. moom moom kenn la moom. wallaay wallaay wallaay Ndóor. Ndóor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 si katun yalla soo ko jëfandikoo bu fekke lu wax la lenn si setan yalla dana la ko safaral niki noni da ngeen fa fekk mbir yo xamne lu melni ni Touba sunu mbokk Moustapha Diouf nga xamne mo koy liggey doon bu ama ama am solo tay dimbalé borom kër yi di fajalé ay tawat tamit da ngeen ko fekk si butu gi Wadduha pantawa siruna. Masya allah tawat yu bare bare bare si kattanu yalla momin lu si mel ki eh, katan bu ko prostate ak yu demé non yef tabarakallah eh, daf say dox momi da ngeen ko fek si boutique Wadduha hay ni ki lumu lumu ni ko mbokk bobu don waxe legui na amna solo nga xamne tawat yu bare tawat yu neub yu fi tabarakallah lumu lumu daf say dox da ngeen ko fek si boutique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 soo ko defee les luy information si Mara Cissé si da Faut ko fa fekk fa le numéro wala numéro Mara 77 617 70 44 77 617 70 44 boutique dee boutique Wadduha bu 76 310 95 60 su dee boutique point 1